bu Sénégal yow ñi nga xamee ni yow yaa yore kopparu réew mi ci outil boobu nga war a sukkandiku ngir rectifier ba nga xamee ni euh, luubal koppar ak yu ni mel du ci am te loolu euh, recommandation lay doon bokkul kon ak recommandation yeneen yi nga xam ne moom mooy euh, Mambay def na nangam nañu ubbi information judiciaire contre moom mais recommandation pour rectifier lay gën a doon. merci beaucoup. pour nee leen. Mm. yéen moom lu jëm ci wàllum yaxanal xaalisum réew mi yéen bokkoo leen ci à demain maa fi jaaroon kon à lundi sax laay wax incha allah. à demain kay. ñu dem ba ceeb. ay <laughs> ñu euh, laata ñuy dem ba ceeb dañuy dellu si fii des médias euh, Mame Mbaye Ndiaye ànd seeg yéen kaay euh, des médias di tribune ci li gën a fës ci bopp yéen kaay. kay ceeb de xamoon existé na. waa ceeb ngeen baal ma rek pour man bant boobu ñuy def si ndox kese la. pour man ceeb ndekete yow ceeb dëkk la. xam mhm. nga man sama xam-xam na wax dëgg sama sama tànk soriwul. loolu yàlla dogal na loolu wute naa Bougane Gueye Dany ba nga xam ne wër na tànkam dem na fépp waaw day tibb tànk moom tibb na tànk wër na réew mi sa wejjo weccoo na coono yi xam nu mu wax noonu. moom séddoo coono moom dafa maîtriser carte Sénégal waaye man sama tànk bee sa xombal gi. mais parce que dafa am ambition présidentielle c'est important. nga maîtriser sa cartographie euh, man naa am ambition présidentielle. yow de ah. bu mu kenn parce que 2024 bi yegg seegul te ku nekk xaj na sa mbax loola rek. Fabrice nee na ñax. ñàmpe ñax fu mu nekk réew mi <laughs> eh, lëj na. je te dafa lëj. ay ca nuyu nañ ñëpp ziar leen bu baax ah ni ngeen di àndeex ñun bu waxtu wi jotee nga sang bi Serif eh, Ibou Seni ceewlaay laay ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ziar bu baax ndax nag moom dafa bokk si ñi nga xam ne dañuy teelu eh, fajar gu eh, fajar gu jot te loolee da ci am solo ñoom kilifa diine yi mm. seen ñaan da ciy baax da ciy baax ah mu am koo xam ne dama koy woo pour mu nekk sponsor nag ci matinal bi mm-hmm. il faut mu ñëw parce que dañu jëg ma pèlerinage et tout ça el el Medina Travel mm-hmm. ñëw Ah, waaw parce que maa ngi ciy wax ak ñoom. bu dara boobu ma wàcc ma dem démarché il faut nga démarché ko dinaa la booleex moom. il faut nga dem nga démarché ko parce que elle euh, Madina Travel dafay def euh, pèlerinage donc comme nag ñoo ngi ciy dëgmal. te am na lu ñuy waajal si seekan am na lu ñuy waajal. donc après dama la fay yebal. nga démarché ko parce que nee ko nag boo bëggee ñu gis ko kilifa yëpp ci réew mi askan wi yëpp ci réew mi ñun la ñuy seetaan boo bëggee ñu gis ko dégg ko. Mm. ñëwal fii ci matinal bi. ci la bonne adresse fii la lépp di feeñ. très bien on ouvre. ayca yéen kaay groupe des médias dafa ñëw ci li nga xam ne moo bindoo ni tama ñu koy tëggee. dama wax sax ñaari boor waaye téeméeri boor dañu koy tëggee fu mu nekk ni ci réew mi coowal ñetteel mandat bi rëy na. Ah. coowal demee nañ ko marché baye nañu ko nduggee nañu ko toogee nañ ko ci restaurant yi duggee na demee nañ ko ci transport en commun yi. coowal troisième mandat bi nee nañu nag yéen kaay bi nee na neexul ba neex waaye ñoom bar loo ko bañ bañ bañ bañ nangul ka ne ay noppam dafa gudd. mbaam loo ko bañ bañ nangul ko ne dafa tëxet waaye nag président Macky sàll mii tamit ñun ñëpp nañu ko nangul ne kanfoori la ci arène politique bi jëw riñ la ci arène politique bi mm. ndax dig yi muy teg tànk yu muy doxe fa jaar bari na ay politique yu fa jaar daal di suux moom ba terewul mu continuer di dox li koy firndeel yéen kaay bi nee mu ngi teg ay jéego yi nga xam ne ni bés bu sottee parti démocratique sénégalais ci poche am lay ne te bu fekkee parti démocratique sénégalais dikk na ci biir poche yeneen alliés yi nga xam ne ñoo fi nekk di bajantu ay parti socialiste yoo AFP ñoom seen dan laan leen dem leen ngeen toog pëseetu leen ndax nag yéen kaay bi nee na moom mii gis nga la mu tegaloon Aminata Touré ni proposition na Touré bu ko nangu woon tey jii waa parti socialiste dañ xam ne lépp dëgg la boobaa am booba Aminata Mbengue Ndiaye ak waa parti socialiste dañuy jékki-jékki rek gis seen bopp mbëbës toog mbëbës politique retraite nee na boobaa au conseil des collectivités territoriales sax dañu koy ñàkk yenn kaay bi moom mooy wax de ba tey président mag Sall nag nee nañu euh, euh, yéen kaay bi nee na ñii nga xam ne ñoo taxaw naan ñaari kaay yi day lijjanti seen cas ñaari kaay yi moo di Karim Meïssa Wade Khalifa Sall day lijjanti seen cas maanaam daf leen di amnistie yéen kaay bi dikk na ci de nee na ñooñu bee boo ñu dem toog. du leen amnistie. nee na loolu nekkul ci xalaatam sax président Macky Sall nee na loolu du xalaat du ay wax yéen kaay bay wax ba tey de. nee na ñooñu nañu dem toog ñii di xalaat ne ñaari cas yi nañ li jënti seen cas Karim Meïssa Wade Khalifa Sall dem leen ngeen euh, toog forcing troisième mandat bi nag euh, nga xam ne nii nee na ñu wax fa dëgg neex yàlla ña ko activé lu mu gàtt gàtt quatre cent mille voix bu parti démocratique sénégalais activé nañ ko. retrouvaille famille libérale bi maanaam njabootu Abdoulaye Wade gi. Mm. fara wadd njaag alkaalima samba borom jam-jam ja sa gànjool bàyyi ah, war a war a wadd saar min ndikk coro saar maa ne coro saar ba fa coro saar ah? ah borom alternance moo ñu miinale autoroute à péage moo njëkk wàcc ay gi te ki inauguré ko dafa am fit maam AIBD <laughs> ba muy nekk poussière ay garab la fa wàcc <laughs> laa la wax nii <laughs> même nee nañu ne jamono ji moo gën a nekk actualité retour bay famille libérale ñoom waa parti démocratique sénégal ña fa nekkoon ndax ña fa nekk tey jii ba léegi nii nañ ñu dajale waat nee na loolu actualité la te boo demee assemblée nationale di nga xam ne lépp dëgg la te dëgg la mi ngi ci actuel euh, euh, ñu ngi ciy dox jamono ji yéen kay mooy wax ba tey du samay kàddu nag li Fabrice di wax. bu dee loolu am na. Hmm. ñun ñii àtte di voté. war na nañoo kon def ndànk si langum politique. moo yow sénégalais ñoo la gën a xam ne politicien lu mu la wax ne uhuh. <laughs> te bul dëggal bu mu la taxee xeex xam nga la moo tax fa ñu daje di waxtaan doo ko fekkee assemblée nationale man maa fa dem di couvrir boobu laa bàyyi euh, politique dañuy nekk ci biir arène bi ci biir assemblée nationale di xeex saagante buñ paree ba la fekkee ci restaurant bi heure pause ña ngay tàppante xaaxataay ree kaf alors que ci biir assemblée nationale parce que caméra ngi yaa ngi leen tiim ñuy saagante di sànninte ay dàll mais boo demee après ci restaurant ba fa ñuy amee ñooy bokk ñooy bokk di waxtaan di ree loolu nag ku mu doy lu lay doy. Mm. yéen kaay bii laa tribune la ñuy desandi kii nga xam ne nag moo di sëñ Bass Basirou Guèye te mu nekkoon procureur. démb amal na janox taskatu xibaar yi nee na guléet mu amal point de presse def déclaration ci mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko ndax nag dafa doy dafa doy lu ñuy tuuma ñu teg ci ginnaawam lu mat deux ans am kab sëriñ andi ko Basiirou Gueye yóbbu ko Basiirou Gueye demee nañ ko marché picc yi sabee nañ ko moo yi demee nañ ko géej tëmbi jinee ko mais nee na nag loolu moo day moom ci boppam nañ ne falsification bi nga xam ne moom lañ koy tuumal ci PV bi. Mm. dara amu si. photo yu bon yi nga xam ne nee nañu moom la dëxëñ ci booy dugg ci page yu huit euh, beauté nee nañ boobu daan dugg rek ay photo yu doy waar nga fay gis yoo xam da ngay am envie si si bëgg dem sa maase wu mm. nee na yooyu ay dóor tontu na démb de mm-hmm. Mimi Touré danga na ki nga xam ne moo di président Macky Sall nee na ko yaa ngi bippé am crédit koo xam ne dalay oo ilimix si amul arrêt <laughs> nee na ko woo nga naar ci guuxum soow Ameth Touré mooy wax de nee na ko coowal troisième mandat bii di nga xam ne sumb nga loo xam ne nii dootoo ko daanati ndax duma la ci may dara dara dara dara lu doy ni talfatal ay na <laughs> loo wax mu ne lan analyste politique sociologue lu mu wax nee na neel maam may naa ko sama bopp ndax li mu wax <laughs> ci Pa Abdoulaye Wade eh! oh, bàq nee alkaalima sàmm bu tax ma dolli waat ñu ñëw ci alerte nee na nga def ko sa surga <laughs> ma def ko sama surga alerte quotidien dafa ñëw nee na mi ngi ñaaw de réew mi fu mu nekk ni arène politique mi ngi ñaaw de te soo moytuwul day gën a ñaaw laaj ma lu tax hmm. ndax muy opposition du pouvoir ku si nekk ku gën a ñaaw ay kàddu nga ne kii na ah. kenn mayu sa moroom dara Ousmane Sonko ak ay nitam waa Pastef nee nañu jaay nañu leen seen bakken bayu ñu si dee bakken jàmm moom la ñu wax bayu ñu si dee laaj ma lu tax bind nañu seen testament ba noppi hmm. waa Benno Bokk Yaakaar dañoo tontu nee nañ lan xam nga ñoom lu ñu wax hmm. dëkkab dóore fayoo koy tas la woon woon ni na ñoom nee nañu leen déen def ngeen seen testament ba noppi ñun jënd nañu per ak suñuy sangu ba noppi cuuraay la muy àndal pour bu ñu lay denc ñun taxaw nañu loo leen joxe ñu fekk ñu fi waaw waa ñoom nee nañ tëdd dee rek la ñuy xaar na leen dal ñoom c'est que réew mi sax litige foncier yi moo bari mm. tëdd dee sax amoo ko <laughs> meel gi sax dañ koy xëccoo léegi donc yay <laughs> dóor la rek Aminata Touré tamit nee na day gën a ñaaw wax ji bu leen bu leen bu leen sona seen boo du ma man jox naa leen sama bakket. comme Omaro bi nga xam ne jox na artistes yëpp seen bakket ma koy nuyu. <laughs> moom mii di Aminata Touré nee na troisième mandat bii. Mm. man jox naa leen sama bakket sarax saraxe naa leen ko. amul sax ma dem te ñëw Guy Marius Sagna. Mm. nee na bu mu leen bett man bu ñu ma assassiné. Ah mi ngi ñaaw de. assassiné ja wax jaa gi ñaaw de. ban réew lañ nekk. wax jaa ngi ñaaw ñun Sénégal la nekk am fu mu nekk nii. ñun fan la ñu nekk laa bëgg a xam. le témoin ñëw ci Basiru mii nga xam ne. nuroo wala Ahmed Aïdara <laughs> ba ci nel bi. def na réquisitoire laa la wax nii moom Basiru démb am mayul dara Ousmane Sonko la mu bëggoon wax yëpp démb ba mu jonox taskatu xibaar yi waaj yaa dina koy yebbi nee na tegoon ci kawam yëpp dara amu fi mais nag wax dafa jooy ñu nekk lan nga doon jooy mu ne dañ ma teel a wax jotagul. Mhm, dañ maa wax te jotul. waaw. Mhm. ñu nekk muy continuer di jooy ñu nekk loo jooy mu ne dañ ma waroon wax te waxuñu mhm. waaye sëñ Bass neen na wax day doog a jot. moo tax démb lay soog a wax weddi na tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci kawam waaye Aminata Touré yi démb daal dinay euh, wax bu baax tontu jëm ci troisième mandat bi ak la nga xam ne moom la ñu tekkee ndombal tànkam mm. coowal Sweet Beauté ci bés bi le jour réplique bu Serigne euh, Serigne Bassirou wala sax Serigne Gueye Serigne Bassirou Gueye moom nag jël na ay charges yu diis teg ko ci Ousmane Sonko nee na stratégie bi nga xam ne tegoon nañ ko ngir nag tilimal deram jàllul te Sénégal yëpp xam nañ ne jàllul du samay kàddu jamono jooji Aminata Touré tamit moom it nee na pare na pare na ndax ni ñu tekkee sama ndombal tànk sa assemblée nationale dara wu ci yoon te nag avec Macky lu mu bind wàccil tuuti avec Macky je m'attends à tout moom nee na président Macky Sall moom laa leen wax nee na président président Macky moom loo ko bañ bañ bañ nangul ko politique yëfam la. Mm-hmm. xamante nañ daal xamante nañ daal élève élève Abdoulaye Wade. doomu Abdoulaye Wade dem bay dirante mbagg Abdoulaye Wade mën na politique. direct news affaire Sweet Beauté accusation contre l'ex-procureur moom procureur ba woon Serigne Bassirou andi na ay tontu de la nga xam ne Ousmane Sonko tegoon nag stable wekki na lépp démb andi yo moom version nee na le capitaine Touré a dit que c'est lui qui a demandé au commandant Beng de modifier le rapport de la gendarmerie pour enlever ce qui disculpe Sonko moom moo ko wax andi na ay révélation yu bari yu nga xam ne def na ko démb ba mu janoox taskatu xibaar ngir andi ay leeral parce que nag coow li dafa bari coow li bari na te nee na dootul toog seetaan noonu ñu yàq jaram affaire Sweet Beauté quand l'ex-procureur danse dans ses contre-vérités yéen kaay bi nee na wax fa dëgg na yaa procureur na lu mu fi wax dem ajur ngooñ de mhm. convaincre kenn nee na ko yow ba Serigne Bassirou Gueye yow mii li nga fi wax boo foogoo ne am nga koo convaincre sa bopp ngay nax waaye du ñun ñi ñun xam nañ lépp dañoo xam rek toog mhm. moom mooy wax ba tey de l'évidence ñëw ci éclaircissement yi nga xam ne Serigne Bassirou du ko doon jéem a andi nee na da doon ut saafara waaye jàngoro la mujjee doon. Hmm, da doon jéem andi ay leeral. waaye foofu dafa gën a dugal boppam. yemul si dugal boppam dugal bopp dugal bopp ñeneen ña nga xam ne nii nit ñi xalaatu leen woon sax kon da doon weddi tuuma waaye wax fa dëgg ne nee nañ kii sa justifie. s'accuse loolu la nasaraan bi wax. 59 kon. mi ngoog. ah déet moo ne neexoon na de. <laughs> Hmm? te lu neex du doy mbaadu. lu neex du doy dañu koy dox. waaye lu nuyoo. ah dana tàggoo. malheureusement. yeneen quotidien maa leen ko ñaan rek ngeen jéggal ma ko ba suba ay tey ñu ñëw ci Odia Odia def lu am solo ah El tey bu la la woote de très bien tey bu la woote ma woote bu la la woote ma woote bu la. bu la jaune. waaw Yewwi je veux tisser un de pagne comme ça mi ngi am na Touré nee na démocratie si lay dox. Mhm. dinaa xeex ba démocratie doon dëgg fii ci réewum Sénégal. Mhm. Khalifa Sall nee na ko ensemble de. ndax na Touré fu mu nekk ni lan lay woote nee na front bu mag la ñu war a organiser ñoom ci opposition bi moom la war a taxawal jamono joojee kii kan la ki du Guy Marius wala ah ma ne kii xàmmee ma ko waaye kii daa Khalifa Sall la mhm. kii est-ce que du Barthélémy Dias parce que Barthélémy Dias am na yéen kaay bari yu si ñëw tey jii ak discours bi nga xam ne def na ko nee na nag ti dafa jot nañ waxante dëgg mhm. que mbir yii bee yaakaar ne mën nga see mucc yi da ngay nax sa bopp waaw moom am na yéen yu bari yi nga xam ne dikk na ci Euh, ci euh, euh, tay ji ak discours bi nga xam ne def na ko dem kon nag waaye politiciens ñoo doon def ay sorties ku si nekk di wax di tuumal sa morom Très normal et très prévisible à l'approche de, des élections présidentielles de 2024 qui n'a toujours pas de date en tout cas loolu moo ñuy may rek ñu jaajëfal la daal di dugg ci xibaar yi ànd sek Haj Mansour Diop Mambay Ndiaye Rafet News. allo asalaamaaleykum. salaam Asma. naam noo def. maa ngi laa ziar maa ngi laa ziar bu baax. Asma waay di la di dellu ziar bu baax a baax jamono ji foo nekk. voilà merci beaucoup dépassé nañ léegi rond-point bu Cambérène ci boppam foofu la nga xam ne jafe-jafe yi tar nañ foofu la surtout ñu bàyyi ko Pikine très longue file de voiture ñu wàccee ci péage bi naka noonu su ko defee aussi ñu tàllal rek o fu mooy Patte d'Oie foofu la soit nga progressé utali parce